tey nag li nekkoon sunu sunu yitte mooy ñun dañoo jógoon ne kat li ñuy def dañ koy tàmbalee ci daara yi loolu itam li ko sabab du dara lu gis nañ ne ñooy ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole te ñoom liñ digle def nañ ko ba noppi parce que daara yëpp tey ji confiné nañ seeni donga daara kenn gënatul kenn dematul fenn te loolu xañ na lott nañ ci lu ñuy toppatoo daara yooyu ñu ne woon dañu koy def itam ndax sàkku ci ñaan ci barkeb alxuraan sunu borom suturaal nu dimbale nu tin sunu kilifa baax yi fi dekk ba jeexal mbir mi ci Sénégal jeexal ko mbooleem ci ci àdduna si kon moo taxoon tey ñu xëy di wër daara yi ngir li nga xamante ne bii mooy ay ndimbal yoo xam ne danañ ko def euh, di sant nag bu baax a baax ki nga xamante ne bii moo di Cheikh Modou Mountakha ndax moom moo wane yoon wi ndax dafa ñaan ba noppi daal yëkkati koppar yu takku jox ko président de la république neex que lii maa la ko jàppale ci nu ñuy xeexee jàngoro ji kon kooku dafa war a aw yoon kon képp ku dib taalibe képp ku dib julit képp ku dëkk ci réew mi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 ba ñom ñu am luñu mëna a dana doon dimbal li nak mom daara yëpp ak soxla yi daan yelwaani ak yi daawul yelwaani motax tax bu rafet la euh, sur le plan humanitaire euh, kon ci waye même sur le plan religieux côté boo ci jël rek lu positif la lo xamné ñi ngi leen ci sante tay ñaan ñi nga xamné suñu borom man na lo leen ko yëpp appel bi ni ngi ko défé ñu roy la ci ndax gis lu bax roy ko yit ci ak mat la bok kon dal ci teunk bu gatt rek ñu sant bu baax a baax. ñu boole ci xam ne xeex bi ñaar la fokk dañuy jël suñuy matukaay waaye en tant que ay jullit ñu gëm dañuy gëm ne it suñu borom moo ñu digal lii nga xam ne ay matukaay la yu ko docteur wax ne nañ ko jël yàlla moo ñu ko njëkk a digal. wasiyaabaka fa tahir ku ne jàng na ko ci alquran bu ñuy wax na ngeen laabal seeni yére loolu laabug biir ak laabug bitim mi ngi ci. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne saa boo xëyee sa loxo bala nga koo joo fenn raxas ko ndax xamoo fu mu fanaan loolu bu ko dee wax mooy yow am amoo conscience waxtu wu nekk ci say loxo la ca war a mën a nekk mu digal ñu ñu koy raxas kon loolu ndigal yooyu nga xam ne yonent bi jàngaloon nañu ko tey moom lañ ñuy fàttali kon buñ koy def war nañu bàyyi xel ne ñi ngi jëfandikoo suñu diine lii nga xam ne mooy ni ñuy wax ne booy tissoole wala ngay sëqat nga nga nga nga nga fexe ba ba ba mu bañ tasaaroo nga muur sa sa sa bakkan ak sa gémmiñ loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk a wax ne bu kenn ci yéen tisoolee na jël ay loxo muur ko ci kanamam. ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan def bu doon tisool day jël mbu mbu mbalaanam mbubbam muur ko ci loxoom. kon loolu kon moom ndekete jàngaloon nañu bu yàgg ne nit ku war naa protéger boppam waaye war naa protéger aar ñi nga xam ne ñoom la dëkkal ci lépp loo xam ne war naa mën a jóge ci moom ci jàngoro tasaaroo. yonent bi sallallahu alayhi wasallam wat na wax ñu ne fu ngeen ko dégg ci muy mbass mu tasaro bu len fa dem ku fa nek bu mu fa joge lolu ay hadis la damay baña guddal waxtaan wi ci indi texte yi way xam nañ ko ñun ñep kon lolu moy wane ne kon nit ki warna protéger bopam way protéger ñeneen da nga dégg ku ne man day maanaam regaluma ragalu man na ma def nangam man na ma dem barab sangam way bo regalut yow ragal ga dudul ñaka ragal ga dudul yam ci sa bop rek yow boo ko jëlee yow rëgaloo mais boo ko wàllee keneen nag moo tax maanaam li wax ne bul déplacé wu déplacement boo xam ne ay risque mi ngi ci loolu dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax ñu xam ne nag barab bi ñu nekk sëriñ bi daf fee ñaan ñaan yooyu nag nga ñaan dañuy gëm ne li sëriñ bi bu ñaanee yàlla da koy nangul waaye naka jekk ñi ko fi mos a toogal ñëpp lam ñaan dañ cay sabablu dañ cay def ñaan na fi ndox gis nga ñu def ay forage ñaan na fi sécurité ñu def fi loo xam ne day tax ak gaal day indi sécurité boobu ñaan na yàlla dàqal ko balaa wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib eh, shurbaha uklaha wa shurbaha ñaan na yàlla mu dàqal ko balaa waaye ñaan gi dafa am lu am solo lu ci ne lum ci waxaale ci biir dafa ñaan yàlla nanga nga dàqal balaa yi a xeeti pandémie yëpp waaye na ñaan yàlla liñ fiy jëfandikoo ci lekk ak naan na nekk lu sell kon mu mel dafa ñaan mucc waaye ñaanaale condition yuy tax a kon loolu dañ ko war a comprendre ne kon li ñuy lekk dañ ko war a sellal li ñuy jëfandikoo ci ndox dañ ko war a sellal kon set gi ak sell gi ak fegu gi ndigal la loo xam ne dañ ko ndigalu yàlla la ndigalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la waaye ndigalul Serigne Touba mii la ndax Serigne Touba lu mu masaa di digle moom da koy ñaan boroomam ndax xam ne lépp loo am ci suñu borom lay dellu loolu kon moom lay daanee la mooy pas-pas bi ab jullit war a am mooy gëm lépp ci loxol yàlla la nekk waaw fa subhaanallazi bi yadihi malakuutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un waaye moom mi nga xam ne lépp ci loxoom la nekk moom moo digle ñuy jël ay ñu ñuy jëfandikoo ay sabab ndax lu nekk dafa am cause directe ak cause indirecte cause directe yi moom ci la scientifique yi yëngatu cause directe yooyu moom dañ ko war a jéem a xam jéem koo moytu ci loolu mooy jëfandikoo ay sabab. sëriñ si ñu moytu rek euh, xale yi di dugg di gën xale yi di dugg di génn ak xale yi di dem di taxawaalu si mbedd bi. parce que jàngoro bi nek na li nga xamné Nous dafa gaaw walati té xalé yi bu leen arul ñom seen walu bop dañu dem jëliko jox ko seen ay donc nañu faisons, nañu farlu ci lolu ñu dimbali sensibilisation bobu bu doon tay école de la république jël dogal école yi université nañ même case de tout petit tout tanki, nous nek dañ donc. bu ñu tëjee loolu yëpp ça ne veut pas yi moom suñu yoon nekku si déedéet daara yi si si si école la ñu bokk si école yi la bokk parce que ñoom dañuy defar dañuy yar dañuy defar kon ñooñu te ay mbooloo nekk si surtout fii si Touba parce que Touba dëkku daara la waxe sëñ Touba euh, dëkkam dëkku daara la dañu fiy jàngale alxuraan moo tax sëtam bi tamit bu mu ñëwee tey jii ñu ànd ak moom depuis suba ba léegi wax dëgg yàlla muy jox ay produits daara yi pour vraiment ñu mën a jàpp xale yi ñu faggul leen si jàngoro bi te yàlla nañu si yàlla may ndam ndaxte jàngoro bi ñun ñëpp ñoo ko war a xeex. guerre la dégg neen nee ñu sax du ni président français nee na guerre guerre mondiale c'est une kon ñun tamit dañu taxaw xeexante moom. xeex ko ziar ak si baatin. loolu donc yàlla nañu si yàlla may ndam. di sant yàlla sunu borom tamit ndaxte coronavirus faatugul kenn fii si Sénégal. te yàlla bu fi faat kenn.